jaa ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci ànd geeg bàyyi xel geeg VCB di leen wax ngeen di gën di wéy di abone ngir di mën a am bépp xibaar bu fi bàyyi ko di am kontaan ak mbégte ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk wax nañu leen ko VCB léppi ñëpp la lu ne ku ne nga ca bépp xabaar bu muy information rek daañu ànd ak yéen fii ci biir chaîne bi wax nañu ni ñaar. moo ñuy yëkkati fii ci chaîne bi muy lu xew ci réew mi ñu ñëw ànd ci ak yéen wala lu xew ci diine lislaam ji ñu ñëw ànd ci ak yéen bu ñu ci xamee dara ñëw waxtaan ci ak yéen bu ñu ci xamul dara dem wommat boroom xam-xam indi wala ñu jël suñu téléphone woote mais bu euh, néew na lu muy dugg ci dara euh, te xamu ca lenn di ci làmbatu mbokk yi tey jëlee nag vidéo bi li ko tax a jóg dafa am ay leeral yu ñu bëgg a def ci manipulation yi xam ni dafay am souvent te bi mu commencé ba léegi mbokk yi mbirum Ousmane Sonko ak Adji lu nekk dugg na ci ba sax yenn saa yi nga gis ak yabeel guy am ci suñu digganteeg ñoo xam ni yabeel musul am ci suñu digganteeg ñoom euh, ñooñu ñoo tax tey jële jëlee ay bu mën a tëj buntam nekk ak jabaram ci biir néegam nekk ak njabootam xàqataay reeba loolu ñoom ñoo tax muy ñan muy gendarme yi suñu takk der yi. tey nag dafa lu ñu bëgg leeral mu benn vidéo boo xam ni yéen a ngi koy gis muy circuler ci réseaux sociaux yi partout. ci benn xale boo xam ni ñu wax ni mooy doomu Mouhamed Ka mi nga xam ni moom moo ñàkkoon loxoom ci manifestation bi moom ngeen déggoon Ousmane Sonko doon ko wax euh, Mouhamed moomu nag ginnaaw bi mu ñàkkee loxoom askanu Sénégal war ko ñaanal war ko bàyyi xel euh, jàpp ni histoire dana bind li ko dal muy dafa nekk kenn ci ñi nga xam ne dañ doon aar kaaraange réew mi ci yëngu-yëngu yi fi am ba ñàkk ci loxoom yàlla dogal mu ne ci ay jafe-jafe ñu jël benn xale posté ko ci Facebook bi ak ci YouTube bi ci TikTok bi di wax ni mooy doomi gendarme bi loxo bi dagg xale bi di ci wax ni Macky Sall moo dagg sama loxo papa ñu laaj ko ci vidéo bi kan nga àndal mu ni Ousmane Sonko. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñuy xamle ni kooku du doomu gendarme bi te dama leen faral di wax nag bépp xibaar bu leen soxaay bu jox mën na neex ci ki koy dégg que mën na naqari mais su suur lañ ci am doog koo wax du doomam xamul xale bi xamul ndeyam xamul baayam mosul gis xale bi naam am na doom bu jigéen moom gendarme bi waaye kiy wax ci vidéo bi du doomam am na ñeneen itamit ñoo xam ne ñu ngi yor ay ñu ngi yor ay euh, euh, euh, benn compte orange money di ci wut xaalis ci turu gendarme bi loolu lépp mu nekk loo xam ne ñooñu ko def sax tey ji la gendarme yi wala bokk yoon mi ngi def liggéey pour jàpp ñooñu ñuy def loolu pour wax ni gendarme bi lépp lu jëm ci ay matuwaay yu ñu ko war a jàppale ak yu ñu ko war a téye wax dëgg yàlla ay kilifaam seetaanuñ ko ci koor bi mu nekkoon di ci liggéeyal réew mi tumuranke wu ci ñàkku cee liggéeyal réew mi ba mu ñàkk loxoom nag ñuy xaar Sénégal yi di ko ketal wala ñu koy laajal wala wala wala mbokk yi dossier Ousmane Sonko bi ak aji saar lu baree bari am na ci yéen a ngi fàttaliku bi ñu jàppee Ousmane Sonko mu nekk biir section de recherche ñu xëy ni dafa war a wuy ji laataama wuy ji lu ne dégg nga ko ci ñu ne waa section dañ ko empoisonné dañ ko jox dañ ko jox posen dañ ko dorogé ba mu fa nelaw fa ñu wooye Adji Sarr mu ñëw seq ak moom sëy ak moom ñu vidéo ko après vidéo boobu la ñu war a jël exploité ko yu bari dégg nga ko mais ginnaaw sorti Ousmane Sonko moo weddi loolu la nga xam ne moom la Sénégal yi doon wax ma jàpp ni nag support yi ñuy liggéey muy réseaux sociaux yi muy man muy keneen mën nañ ci am yàlla ka mën nañ ci am leneen am na koo xam ne tey fii may wax ak yow mi ngi biir prison lu ko fa dugal audio bu mu envoyé video bu mu def wala photo bu mu posté wala wala wala ba léegi sénégalais xàmmaguñ doole internet ak gaawaay gi ak ni mu efficace tey ki jël vidéo bu posté ko ci seen YouTube am lan moo ko ci mën a fekk parce que gendarme boo xam ne dafa nekkoon ci toolu xare bi ba ñàkk loxoom. jamono ji ay ñaan la gën a soxla ci loxoom ke jël xale posté ko ci Facebook bi wala ci YouTube bi di wane ni doomam la euh, nit ñi di triste ñii di jooy ñii naan dafa mbokk yi nañu nañu moytu nañu moytu bu baax a baax coowal aji Sarr lii ak Ousmane Sonko Baye Assane Mesere yàgg na koo wax ku moytuwul ku moytuwul ci pax mi nga jëm te ñu baree bari sax ñu ngi ci pax mi nañu ci teey te bañ cee dugal lu ci bokkul. te bañ a jël loo xam ne ñu ñoo ko moomal suñu bopp yàgg naa leen koo wax mu ci muy ci wal fajiri ci telebeek ci rajo bi ni leen nañu fonk suñu takk der yi état bu ñëw fekk ñoo ñoom état bu dem bàyyi ak ñoom la ñu seq ak état ñoom ñu def ko ak état li ñu seq ak ñoom ñu def ko ak ñoom bala nga gën a xam seen yërmande xam ne ay nit kese lañ duñ ay leneen nga am jafe-jafe ba dem ci ñoom ka nga amal jafe-jafe kay mooy sa belem ci ñoom. waaye nekkul sa diggante ak ñoom ñoom ngay amal jafe-jafe yàgg naa leen koo wax ay nit yu baax lañ ay nit yu yiw lañu ñooñu nag mbokk yi bu ñu leen amee nañu leen protéger naka lañ leen di protéger boo amee ñoo xam ne mënuñu wax gis nga gendarme bi muy Mouhamad buñ ko doon sosal fii ba déwén du wax xam nga barki dem maa ngi ñëw ci mbiru capitaine euh, ture di wax ni wërta wax am sénégalais yoo xam ne gisee nañ ko ci beneen façon mais wërta wax te gendarme bi lii ñu ko tuumaal. waxal ko waxal ko ko ci doomam di partager benn xale di wax ne mooy doomam mu am lu muy muy tudd Ousmane Sonko di tudd président Macky Sall mais neexu ko jot na ci nit ci Sénégal yëpp jotee mais daa mën a wax mënta wax fu muy waxee lan lay wax buy wax am na ñoo xam ne ci Sénégal dañu préféré ne ci seen liggéey yor kaaraange askan wi waaye du ñu wax ñii nag ci lañ bokk kon ngal la yéen ñi partagé xale boobu boobule dindi leen xale bi ci seen seen YouTube yi lee dindi leen ko ci seen TikTok yi dindi leen ko ci seen Facebook yi dindi leen ko ndax doomu jàmbur ngeen di partagé boo xam ni jotewul dara ak euh, euh, gendarme boobu ñuy wooyee Muhammad ñu ngi koy ñaanal bu baax nag mu wér bu baax mu tane euh, ndax ñoom ay jàmbaar lañu ci réew mi suñu takk deere ay jàmbaar lañu ku takkoo ak ñoom naw leen barki Dembo Ndiaye yàggul Ousmane Sonko gis ngeen tagg wërëy wi mu leen jox ngir seen patriotisme bi ñëw wane ci réew mi te yemale wuñ ko ci ñoom kese moo xam nga yor mbubb mu oyof wala mbubb mu rëy mu mag ak boo ne saraax biir gendarmerie da nga xam ni jasne rek euh, leneen la ñu yemale kon nañu fonk suñu takk der yi ci Sénégal yépp bu ñu bàyyi benn benn homme de tenue parce que ñoom ñoo taxaw tax ñuy nelaw ba yandoor ñoom ñoo tax ñuy tëdd di nelaw ba yandoor di ne ci jàmm ak salaam guddeeg bëccëg mbokki vidéo bi tey lii la woon euh, am ay leeral yu ñu doon def rek euh, xam naa ni incha allah daañ fi ñëwaat ndax am na yeneen i xibaar yoo xam ne mu ngi juddu am na ñuy wax naan euh, aji Sarr ay mbokkam dañoo porter plainte ñi nga xam ni ñoom ñoo yor seen doom pour ñu jox leen ko am na ñuy wax loolu am na ñu ko bind sax si di ko bind ci gëstu yi ñu defa jot defaguñ néew donte ni gëstu yu jeexagul mais loola mën a gut a am parce que Adji Sarr passé na ci at yi nga xam ni. Euh, fa la waroon a toll ñu wax ni ay mbokkam sañ ñu na porter plainte ndax Adji saar nag ëppal na vingt ans majeur na nekkatul fu ñu ko kii nappee nekkatul foo xam ne dañ koo jàpp sàcc ko kon nag Adji Sarr loolu ay rumeur la yoo xam ne maa ngi ko dégg ñu naan ay mbokkam dañoo porte plainte mais ci suñu gëstu li ñu amagum daal mooy loola dara wéragu ci euh, dinañ fi ñëwaat nag ak yeneen i xibaar yoo xam dafa jëm ci plainte boobu ñuy wax ci aji saar Euh, incha allah ak di wéradi yaramam gi ñu doon wax donte ne Sénégal yi bari ñu ko doon wax mais déggaat nañ ci yeneen nee nañu dafa wéradi ba léegi incha allah daañu ci ñëw mbokk gërëm nañ leen sant leen gërëm bu baax baax ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki internet yi ñu doon bàyyi xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu